mbokk yi dal leen ak ci biir limametti point com ñu ñëw génn ci seen revue de l' actualité nekk li nga xam ni moo gën a fës ci xibaar yi fi jot a xew li ci gën a fës jaare saw def na sorti ginnaaw ab diir boo xam ne toogoon na kenn dégg ko fi nga xam ni moom mooy ci réseaux sociaux yi xale ba jigéen bile génn na daal def ay révélation yoo xam ni dina intéressé ñu bëri loolu dinañ ko yaatal ci biir seen revue de l' actualité li nga xam ne moom mooy croissant a marqué lii nga xam ni moom mooy fin wu bi am loolu aussi dinañ ko yaatal ci biir seen revue de l'actualité suñ ci toftalee yeneen xibaar yi nga xam ne xew na fi mu doon seen revue de presse ngeen koy am ci biir seen site d'information limametti point com ñu daal di yaatal ak croissant lunaire bi nga xam ni moom moo war a euh, marqué njeexitalu weeru koor bi croissant lunaire euh, le sax ñi nga xam ne ñoom ñooy astronaute yu Sénégal daal nañu xam le ni euh, li nga xam ni moom mooy weer bi kenn mënu ko gis mardi bi nga xam ne ci lañ jëm tolloog 11 mai 2021 mardi bi nag dinañ wax ni weer bi du mën a feeñ fi nga xam ni moom mooy ci asamaan si kon nag ñu mën a xam ne mercredi bi nga xam ne moom mooy 12 mai 2021 ci lañ mën mën gis li nga xam ni euh, moom mooy weer bi war a marqué li nga xam ni moom mooy euh, fin weeru koor bi loolu nag bu ñu ko toppee ñu mën a xam ni euh, Sénégal kon dinañ jeexal li nga xam ni moom mooy weeru koor bi mercredi bi nga xam ne ci lañ jëm di mais mai war a korité jeudi 13 mai 2021 beneen xibaar ki nga xam ne moom mooy Malick Thiandoum nekk journaliste sportif moom nag ñu ñu xamal ne dafa daal di quitté groupe bi nga xam ne moom mooy groupe E-Media a ab boo xam ne toog na ko fa daal ko fay liggéey ki nga xam ne moom mooy Malick Thiandoum ñu wax ni uh, quitté na groupe e jëm fa li nga xam ne moom mooy groupe uh, Futurs Médias uh, ki nga xam ne nag moom mooy Malick Thiandoum ba léegi ñu leen di fàttali jot na jaar fa li nga xam ne moom mooy télévision nationale di RTS jaar na fa li nga xam ne moom mooy Sen TV ñëw fi nga xam ni moom mooy E-Media jamono ji nag mi ngi jëm fële nga xam ne moom mooy télévision Futurs Médias li nga xam ni nag moo tax mu daal di quitté télé boobu la di i media mi ngi xam le ni moom amu fa benn problème dafa di rek proposition yi nga xam ne ñoom la ko waa groupe future Médias defal moom moo ko gën a arrangé loolu waral ba mu daal di quitté groupe bi nga xam ni Mamadou Ibra Kane moom moo ko jiite kon nag ñu mën a xaar ki nga xam ne moom mooy Malick Thiandoum fële nga xam ne moom mooy télévision Média Diary Sow nekkoon fi meilleur élève du Sénégal demoon fi fële nga xam ne moom mooy bitim réew demoon foofu le xam ngeen problème yi nga xam ne amoon na ko fi jotoon na fi réer sax ba ñu koy seet mu jaa mu daal di mujjee feeñ ñu bëri sax doon wax ni ki nga xam ne moom mooy xale bu jigéen bii di étudiante bi dafa amoon ay problème mu xel ki nga xam ne nag moom mooy xale bu jigéen bi pour la première fois revenir na ci loolu le moom nag daal di ne wax ni génn àdduna ki nga xam ni moom mooy papaam daf ko daal di bu baax loolu sax waralul événement yi nga xam ne xewoon na fi waaye am na ci li nga xam ni moom mooy euh, part euh, bu bëree bëri ki nga xam ne moom mooy jaari saw ak émotion euh, bu mag la daal di feeñee ci benn live Instagram daal di leeral mbir yooyu le xewoon fi ñu wax ci leneen mouvement bi nga xam ni euh, moom mooy euh, touche pas à Hamas nekk fii ngir sàmm ak ak yelleefu euh, jigéen ñi ñoom ñoo ñoom ñoo daal di génne benn rapport rapport bi nag ñi ngi ko def ci li nga xam ni moom mooy prostitution fi nga xam ni moom mooy Sénégal ñoom nag ñi ngi xamle ni 42 pour cent ci ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yu jigéen yiy jaay seen bopp dañoo daal di diplômé maanaam dañoo jàng ba am ay lijaasa lijaasa yooyu sax toll ci BTS am na ñu si am licence am na si ñoo xam ni sax dem nañ. ba master ay situation yoo xam ne dafa défavorable ñu nekk ci ay milieu yoo xam ne ay milieu défavorisé lañ tax ba ñu dem jublu ci li nga xam ni moom mooy prostitution rapport boobu la nag ñu leen di wax ni ñi nga xam ne ñoom ñooy waa mouvement touche pas à ma ñoom ñoo ko daal di def ñu daal dem fa fële nga xam ni moom mooy Malicounda ci village bu ñuy wax euh, Nianing foofu nag ki nga xam ni moom mooy njiital FRAPP di Guy Marius Sagna dafa demoon ngeen nemmeeku ay suuf soo xam ni dañu ko naroon a jël euh, ci population yi boo xam ni nag moom jàpp na ni euh, teguwul ci yoon ba mu demee foofu nag di nemmeeku loolu leen moom ak ñi mu àndal dañ leen a jàpp daal di leen dóor ba ñuy bëgg a dee loolu waral nag ba ki nga xam ni moom mooy activiste bi daal di accuser ki nga xam ni moom mooy Maguette Sène di maire bu ngi wax nii ni moom moo daal di yónni ay nervi ñu daal di koy dóor moom ak ñi mu àndala loolu nag xewee fa li nga xam ni moom mooy village bu Ñaane nga nekk ci commune bu Malicounda région bu Mbour ñu daal di jeexaleeg sport wax ci éliminatoire mondial 2022 ñu ñu xamal ni nag Sénégal du mën a bokk ci dëkk yi nga xam ne ñoom ñooy recevoir li nga xam ne moom mooy éliminatoire yooyu le li ko waral nag moom mooy stade yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ki ñi nga xam ne ñoom ñooy waa confédération africaine de football di CAF homologué wuñu ko li ko waral nag moom mooy stade yi répondre ñu norme yi nga xam ni stade boo xam ne war na recevoir éliminatoire war na ko am loolu nag daal di choqué ñu bëri surtout nag fi nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi ñu bëri di ko nakarlu ñuy ñaan nag di xalaat ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk surtout ci réseaux sociaux yi nii ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi faree ci wàllum football dinañ jóg uh, ci loolu ba stade yi mën uh, li nga xam moom mooy match yooyu le voilà mbokk internet yi loolu leen leen indiloon tey ci seen revue de l' actualité nekkoon li nga xam ni moo fës ci xibaar yi fi jot xew ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer topp seen site d' information limametti